lii la waxoon que Naboulaye lii la ko waxoon. Naboulaye woo ma téléphone allo Aïda ma ne man ma man la Naboulaye ça va na nga def ma ñu nuyoon te ma ana Aziz. ma ne ko Aziz démb avant ma jógee Dakar laa nga koy woo mais jotu ko sama yaay tamit sànq woo na ko nee na jotu ko ma ne ma maa ngi nii buntu appartement Aziz maa ngi sonné Aziz ibbiwul maa ngi koy woo téléphone téléphone am sonné wul te man Naboulaye du ma jóge ci bu porte bi tànk gisuma Aziz balaa Naboulaye coupé. ma woo sama mag bi Modou Kane na ko yow Modou Kane bu ñuy woo kon Aziz démb ba tey jotuñu ko kon Aziz ba tey téléphone am tàkkul ñu Modou Kane na ah ko Modou Kane coupé rek na bu lay woowaat ma téléphone dama allo Aïda bëgg a dajji porte bi waaye borom kër gi nee na amuñu droit dajji bunt bi tant que mu bokkal nday ak baay taxawul na bu ma ma wax léegi ma woowaat Modou Modou dama maa ngi nii di jox ma numéro na bu lay ma jël numéro na bu lay envoyé ko Modou Kane par WhatsApp Modou Kane nag ak na bu lay déggante affaire gi ñu la demee kan mooy Modou Ka. sama mag bu góor la. d' accord bi loolu amee tam ah, ñu dajji mais yow ah, kañ nga mujjee gisanteeg Aziz. Aziz maa ngi dégg mujjee gisanteeg moom mercredi gu muy def euh, interview bi ka ñëw Samba Nguer bu muy dem di def ji interview maag sama yaay ñu ngi ak moom fekk na ñun ñoo ngi dem police ginnaaw raay daa am lu ñu def maag sama yaay ñu daje ak moom waxtaan si ak moom moom na ma jiitu leen ma après ñu ñëwee fekk leen fi. as gu muy ñëw ma fekk ci lal gi maa ngi nelaw mais damaa dégg voix am rek na sama xarit la rek damaa tëb munu ma ay da ngeen nelaw moom Mbaye Seck sax ñoo fi ànd ménager am da ma ne ko déedéet ma bàyyi samay nalaw samay lépp Aziz toog ci fauteuil bi fii Mbaye Seck toog fii loolu moo ngi nekk ay 14 heures waaw 14 heures loolu mu ngi nekk mercredi Aziz fi la nekk ba 22 heures ci guddi maa ko defaral café moom Mbaye sekk ak man Mbaye sekk ma defaral ko café kase man ak Aziz Aziz dafa feebar man dama feebar maa ngi ko defaree café ak limon ak lem ma defaral ko sama bopp Aziz naan ba pare dama benn daggati limon bi ndax mën naa koo màcc sama gémmiñ ngi dafa la wet moo ko màcc teg ko ci kaw kilim bi après mu dem d'accord euh, lu jëm ci wàllu euh, ju tudd xaalis ndax jigéen a jëflante yaag moom ci paasu màggal ay ñu ko yóbbante pour ñoo ko doon joxam jët wala waa parce que dimanche dimanche si ngoon woon ma téléphone jotuma sama téléphone bu ndaw bi si la ma message sama whatsapp dama maa ngi lay woo jotuma la ma la bëgg envoyé xaalis mais damaa xamul ban mooy sa numéro whatsapp ma liir message bi eggale wu ma ko sax rek ma woo ko téléphone gaaw ma mu ree dama da ngaa bëgg a xam. ok après. Salim Modou kan mi ngi ci Modou ah. Modou bi muy wax nii moodu kan bi muy wax nii mooy Modou Gawlo mi ngi ci live bi mooy frère Aziz bi. waaw mais def demande ñu continuer ñu déglu waaw ah, ok. ko màcc teg ko ci kaw kilim bi après mu dem. d' accord euh, lu jëm ci wàllu euh, ji ci tudd xaalis ndax jigéen a jëflante yaa moom ci paasu màggal ay ñu ko yóbbante pour ñoo ko doon joxam jët wala. waa parce que dimanche dimanche si ngoon woon na ma téléphone jotuma sama téléphone mu daw bi hmm. si la ma message sama whatsapp. dama maa ngi lay woo jotuma la ma la bëgg envoyé xaalis mais damaa xamul ban mooy sa numéro whatsapp ma lire message bi eggalewu ma ko rek ma woo ko téléphone ma woo ko mu ree na ma dangaa bëgg xaalis ma ne ko daaw dangaa sàcc sama xaalis yóbbu ko Touba dem may ko ñeneen ren damay dem munuma waaw ndax bi ma sa numéro euh, bi ngay wéb bi ma ne waa waaw munuma maa ngi lay envoyé temps su ma la envoyé temps bi jox ko Sàmmangeer Sàmmangeer dina si dale lu ci des. loolu c'était dimanche. loolu dimanche la dimanche ay 17 heures et quelques. kon ñi naan samedi lañ ko ray kon tollu dee mënul dee samedi. non non Aziz deewul samedi. ban jour nga jort ne Aziz ci la dee ak ban heure. man maa ngi jàpp ne Aziz mu ñëw mu ngi gaañu lundi te maa ngi jàpp ne tamit lundi nekkul lundi guddi guddi la parce que ay 21h ñoo ngi koy wajotuñu ko lundi ci ay 21h ñoo ngi koy wajotuñu ko man maa ngi jàpp ni kon boobu ngoon gi lay nekk ay 17h yooyu noonu man si lu jàpp. parce que question dafa bari ñii ne samedi ne dimanche lañ ko rey ay vingt et une heures guddi gi la kenn ku di wax yow nga xam ne te dee ngay déggante naa yow bi muy déggante yow dimanche te dimanche bi muy déggante ban heure la. dimanche bu ñuy déggante man ak moom ñu ngi nekk xaaral xaaral ma la ko sama téléphone bi xool. Aziz ñooñu moom moo message heure bi nga dimanche la dimanche. par vocal la waaw par vocal moom mooy vocal bi nii. ndax mën ngeen koo tegal. Mhm. déglu ko. maa ngi lay woo yokk. Aïda maa ngi lay woo jotuma la. maa ci loolu ne. kon mooy sa numéro bii do damay dugalal soixante après sax ma ngi si fu ñu ko jox ko cinq mille dinaa. te ko jëm bi dégg nga xaw ma nag ni moom xam ko kon kon bi la la envoyé dimanche ne la maa ngi lay yónnee xaalis kon Aziz kon. Mhm, d' accord lii vocal bi rek firndeel la parce que vocal bi mi ngi la ko envoyé dimanche. moom ma ko envoyé dimanche. kon Aziz nekk. moom ma envoyé message bi dimanche moom message bi mu ngi nekk ay 16 Mm-hmm. wave bi moo ngi ñëw ay 6 heures ay 18 mm-hmm. la wave bi ñëw mm-hmm. kon du dimanche. parce que Aziz man bu fee même maa ngi dégg sax ñu naan Aziz dafa feebar dafa feebar mais bu mu fi ñëw mercredi dafa mais teewu feebar gi teewu ko dox ay soxlaam teewu ko ambiance teewu ko ree tat wax nañ vocal wax nañ téléphone ndax ñu waxee vocal yi après man dama ko woo téléphone ñu waxtaan mënu ma def si lii ak lii Aziz bu feebaroon balaa moo coupé dina na ma ay da ma ne ko ah mënu ma feebar mais damaa sonn nangam ak nangam mais Aziz waxu ko bu amee lu ko metti rek balaa mu coupé di dama kaar azurna ñu ñu ko fi seet ñu ëpp di fi ñëwoon ci ko waaye Fadel metti na de metti na de ñi def jëf nga xalaat yoon teg ci ñoom yan mesure ndax danoo tas yaakaar famille Fadel Aziz luñ ko def da ko xam da ko wax ñëpp seetaan nañ ko dafa ne moom ku ko rey nañ ko rey as lan la wax message boobu la fi bàyyi message boobu la wax dafa ne carrément ku rey nañ la rey kon as nee na ku ko rey nañ ko rey as message boobu la bàyyi doog a dem kon as tey ji ku def lii nañ ko rey parce que Aziz doon la wax ku def lii nañ ko rey ku def lii Aziz bett na Aziz bett na Aziz de Aziz buñ ko yeewaatoon dina mel ni ci moom gént Adel metti na li jaaxal ñëpp mooy ñi jàpp nañoo faat Aziz ñii ñuy fréquenté Aziz ndax kër Aziz pour nga dugg fa faaw nga am accès Aziz xam la kon ñoom danoo nax Aziz baray ko. dañ koo naax baray ko comme nu ma ko waxee woon au commencement Fadel dama ne Aziz nit duñ jékki-jékki dugg këram Aziz tey ji boo jékki-jékki woon ak lu mu sës si yow boo ñëwoon di sonné këram di ko woo téléphone bi lu wuyu Fadel ree danaan ay kàddoom la loolu ñi dañoo neex lu tax bu ñuy ñëw woowuñu ma. Mhm. kon boog ñu def lii Aziz joxante nañu rendez-vous Aziz dama jàpp ne lundi joxante nañu rendez-vous Aziz ba dugg kër Aziz ba ndax ko ba def li sama mag ji bett nañ ko de man damaa bëgg a xam damaa bëgg a xam lan la lu xew lan la parce que Aziz tooñul Aziz deful Aziz waxul Aziz xuloowul Aziz xeexul man dama bëgg a xam lan la lan la cause bi lan la lu tax lu tax ñu sama mag ji tas yaakaaram lu tax ñu rey magam ji tas yaakaaram tey muy lu metti loo xam ne ana looy wax ki jëf-jëf Fatou Waly tas na yaakaaru asis waaye tas na yaakaaru famille Waly aussi na yaakaaru Aziz tas na yaakaaru Waly diggante Aziz ak Waly dama ci am lu ma xam sax nag parce que Wally ak Aziz bu ñu xamante ci trois mois la toll. Ah mhm. nit ñi wax ñenn ñi di wax Aziz moo yar Wally Aziz moo ko jàppale moo ko indi ah, mooy problème bi. Fadel nee naa la lu Aziz la maa ngi doon waxtaan lu baree bare lépp lu may wax dama ko xam Aziz ak Wally bu ñu xamante ci trois mois la toll. leer na sama yaay jii nii jour bu Wally di njëkk ñëw fii Aziz bu muy xamante ak Wally paree jour bu mu ko njëkk a xam fii la ko indi. waale moo ngi sol jàllaabe Aziz vidéo boobu sa yor naa ko Aziz toog fii sama yaay di werante di werante ba waxale toog fii di jooy waale Aziz naan sama yaay yaa ngi jooyloo waali umba yaa ngi nii toog yaa ngi jooyloo waali te kii dafa ñàkk yaay boobu lañuy doog a xam ne waale dafa ñàkk yaay après ñu waxtaan waxtaan dem deuxième fois waali waali bu fi ñëw ay teraanga la ñu indil sama yaay ngi nii toog ñaari yére waali dafay ñëw jox ma rob jox sama yaay benn jàllaabe waale bu mu fi ñëwaatee sama jour anniversaire la waat waale si ñu mënoon vidéo ci kër gi ci la bokk waale quatre fois la fi ñëw bu mu fiy mujj ak léegi bu ma tee une la deux semaines ci la yam tombeek xaritu bu nekk États-Unis Pa moo jox Aziz pour mu jëndal sama benn doom sama benn doomu mag téléphone bu mu ko jëndee ba pare Aziz jox ko waale waale moo ko indi waali moo indi téléphone bu mu ko indi ma ne ko ana Aziz mun Aziz moo ngi tëdd boobu laa koy gis waali te loolu bu mu amee ak léegi deux semaines la toll version yi bari ñu dégg ñenn ci waa kër ñoom waali que ni xamuñu Aziz mosuñu gis Aziz bokkee woon ak Aziz dul ci Adama Awa te li tax waali dëkk ci Aziz jaaxal na leen nan la waali Aziz daf ko récupéré waali version yi bari lool yow mi bokk Aziz lan moo taxoon waali Aziz tey waali. waa si waa kër ñoom waali wax sa foofu laa bëgg ñu ko tontu ba pare ay waa këram ñooñu luñ ko waxee man kas merew ma leen suñu waxee parce que ay laaqkat lañ ay pulifirde lañ seen olof leerul parce que dañ na xam Aziz ku gëj a xamee ci Adama ak Awa man affaire bi boobu sax envoyé nañ ma ko lien bi ma seetaan ko bu ma ko seetaanee merew ma leen parce que ñoom seen wax moo leerul wax dëgg yàlla te ñoom tamit gisante nañ ak ñoom dikk mm-hmm. fa lañ fekk fa lañ nekk waxtaan nañu lu baax lañ tamit ñooñu fekk nañ Nabou Leye woo ma téléphone allo Aïda ma ne ko waaw man ma a la Nabou Leye sa moo bi ndax mën naa koo màcc sama gémmi ngi dafa la wet a journée ñu ko fi seet ñu ko fi seet see ñu ëpp ñu fi ci ko voilà daa mel ne lii déglu nañ ko je pense bien donc euh, hmm, euh, ginnaaw raqu Aziz Dabala moo doon wax yëkkati kàddu yi nga xam ne fu mu mujjee giseek Aziz lu ñu mujjee dégg fu mu tali moom euh, femme bi li mu wax noonu ci la ci laa bëgg àddu tuuti rek muy sëru Aziz bi muy waxam dafa am ñaari affaire yu ma ci yu ma ci jàng yoo xam ni dafa dafa dafa dafa daw yaram ba pare ndeysaan dafa doyaar ba pare dafa am geste bu muy def boo xam ni nit bu amee naqar bu toll nii di defee nii ndaw si di defee rek jar na soutenir bu baax a baax a baax mais jar naa seconder parce que dafa am ñaar yoo xam ni moom ndaw si man dama ko liir ci bi muy wax ci kanamam en plus dama ko déglu ci waxam maanaam boo xoolee buy wax day ree buy wax day ree day mel ni ku bég te bégul xol bi am na lu ko metti intérieurement beneen bi ci topp da ngay sentir ni buy wax ba déglu voix Aziz bi moom da ngay jàpp ni nit la boo xam ni elle croit que ni bu paree interview bi muy def bu duggee ci néegam day fekk Aziz mu toog maanaam moom ba tey gëmul ni affaire bi am na ba pare teg ci dafa beneen wax bu mu mu wax bu daw yaram boo dégloo ni mu waxee da ngay xam ni kii ñoom xamoon nañu Aziz fi mu leen féete ci wàllu soutien Aziz dafa leen féete woon fu foor ci wàllu soutien maanaam di leen taxawu dafa am lu mu doon représenté ci famille bi ci jàmbaar ak jëf mais damay wax ñi nga xam ni ñoo ñoo bokk ak ndaw si mbaa ñi amoon accès ci Aziz te am ko ci seen famille nañu soutenir ndaw si bu baax comme ni ñuy soutenir yi jee yaayu Aziz Dabala parce que dafa am loo xam ne nit mënu ko fàtte te du génn ci xelam te kii ku ko gis nii muy waxee xam ni denc na ci xolam loo xam ni ba àdduna di tukki du baale te du jéggale te du fàtte parce que li lëndëmoon ci xoli sénégalais yi ci samedi ak dimanche moom ndaw si tey dafa leeral lépp parce que moom moo tax ñu baree bari bari gëm ni yëf yi kon ci lëndi bi la am parce que menn moom moo génn wax ni ci dimanche bi la mujjee déggante grand frère mais ci ay gestu waxam da nga koy xool xam ni ku jar a jege la actuellement bu dee am na jëkkër te jëkkëram di seetaan live bi na soutenir jabaram ba ca kanam na jege jabaram ba ca kanam même bu jaree problème maanaam ci affaire psychologue nag laay wax ci wàllu nit ak bopp parce que daf ci am loo xam ni góor sax attanu ko waxatuma la ak jigéen boo xam ni ndaw la di toll ci digg buntu àddunaam am koo xam ni ci seen biir famille meilleur xaritam dégg nga li mu wax ci wax ji mu ne bi mu liiree vocalu Aziz bi ci ay nelaw la ko fekk mais dafa tëb la veut dire que moom Aziz am na fu mu nekkoon ci moom ci wetam am na fu ko soutenir waaye am na fu mu fu ko jege woon lool foo xam ni euh, lii muy waxee ni danga ko daan gis ci ku góor ki xoolal ku góor ki depuis début affaire bi doon am saa boo waxee moo daan defal ñëpp ci moom la ñëpp doon concentré wu mooy ku góor ki doon wekkoo kurus bi di wax ci début bi di wax wax yu correct nekk nit. nekk ku dal nekk ku am diine nga koy gis ci moom di gis ni moom sax boo xoolee ci moom yow boo amee la metti après sa xel day dal parce que sagam moo bokk ak Aziz mais xoolal jour bi ñuy dem di war a jël néew bi war koo jébbali suñu borom li mu def ci hôpital ci ci ci julli ci jullikaay bi foofu da ngay xam ni kon am na douleur yoo xam ni mën na laa bañ a jàpp léegi parce que nit ñee ngi koy bokk ak yow te doo bëgg tey ñu gis sa faiblesse waaye nag nañ dawal fekk nañu xalaat suñu bopp ñun bu ñu demee fii ak deux mois ba kenn ku ci nekk nekk ci sa yittey bopp ñoom ñu toog seen kër heure ba ñu daan toog ak bés ya ñu daan toog ak waxtu ya ñu daan toog Aziz di leen fa fekk su boobaa la métit bi di am su boobaa nag la ñuy soxla jege su boobaa la ñuy gën a jar bàyyi xel parce que nag famille la te dëkkandoo lañu bi njëkk ay dëkkandoo lañu te dëkkandoo yu jege lañu te maire bi dafa am lenn loo xam ni man jàng naa ci li nga xam ni moo ko mën a gën a traumatiser ci li ma dégg ci enquête bi li ñu wax que ni maire bi yóbbu nañ ko ba foofu ne ko kaay ñu wan la rey ñi def lii ci li ma dégg loolu lañ def ñu yóbbu ko di génne kenn par kenn naan ko kii ci la bokk kii ci la bokk ci la bokk loolu maire bi ci àddunaam du mës a denc boppam saa bu xalaatee doomam gi xalaat jëmm yooyu donte mënu koo fësal dafay am loo xam ne dafay des ci moom kon famille bi actuellement mën nañ leen a may écart mais damay ñaan ngir yàlla ak yonent bi ñi te am soxna ci biir famille ba ña fa nekk am fa ay soxna nañu jege seeni jabar mais ña fa dëkk ca koñ ba te am ay xarit ci famille ñoom Aziz Dabala bi nañu gën a jege seen xarit yooyu te gën leen a soutenir fii ak juróomi at buñ leen wàcc bu buñ leen boddi buñ leen wan ginnaaw buñ leen dànd te buñ leen may benn cerse ñuy génn di dox ci mbedd mi ñoom rek li may wax nii nag waxu xel laay wax ak waxu nit kuy étudier ak nit kuy xool nit te dafa am loo xam ne du denc xoolu nit yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla gën a taxaw ba lii ñu fàtte ko fàttin woo xamante ni si saa buñ ko xalaatee li seen xel di dem mooy ñaanal leen yàlla mais ñi ngi dund lu metti loo xamante ni si yàlla na ci yàlla teg loxo ci barkent yàlla Mohamed jaajëf. Euh, am na solo comme nu ko grand bi waxee mais.